préfet nee na na porte yaa ngi dégg kenn du jaay fii te ñun fii la ñuy jaay amuñu feneen fu jaay bu ñëwee nag jëlee ñu fi ëpp ñu dool dañuy jàkkaarloo ñoom lu ñu am jël parce que nag seet nañ fi ñu war a dem yëpp fi ñu war a dem yëpp dem nañ fa amatul nag léegi lu ñuy réclé amatul lu ñuy réclé kenn mosut a gis jaaykatu jën ñooy xeex wala ñuy taal ay pneu wala ñuy saaga wala ñuy grève wala ñuy manifester amatul mosuñu koo def mais nag sës nañ ci miir bi nit nag boo ko dàqee ba mu sës si miir bi day taxaw jëlee arme jàkkaarloo ak yow lu ñu am jël tay nañu sonn nañu amuñu fuñ jaayee. waaw mais yéen fu mu nekk nii fi ngeen nekk moomu leen ko bu ñu leen joxoon feneen est-ce que di ngeen dem. bu ñu joxoon foo xamante ni dañ naan jaay ko jënd moom fii def ko ci këyit lu leer ñu dem fa ba koro ñuy mën a am marché mais nag ku wax dëgg xam ni bu dakaar amee marché. Touba am marché Kaolack am marché dëkk yëpp am marché 15 mënu ñoo am marché buñ jaay seen i jën loolu problème la loolu problème la te ñun loolu dootuñ dund duñ ko d'accord ati

barki dem la nit daanu fii di waaj a ñëw ko jël yóbbu hôpital ci suñu mooy kenn nag fekkuñu fi amul kenn ku ñu fekk ni dërëm ñii ñoo ko jox jaaykat jëri amul. te di jël seen tuuti. ñu ngi jël lépp ñu ngi jël lépp ak chaque jour di ñu dàq di jël jën yi di ko tuur di jël jën yi di làqatu ginnaaw boo demee fay deux mille ñu joxaat la say bagage loolu la ñu sonn defatuñu loolu. bu ne jël ngeen ko yóbbu prison ko fenn.